Jàmm TV am nañu mbégte àndaat ak yéen ci génn yi nga xam ne ñu ngi leen ko defal saa su ne balaa loolu nag ñu dooree ndokkeel leen ci weeru koor bi nga xam ne ci la ñu nekk jaajëfal leen waaye it leen gërëm leen ñaan yàlla mu daal nangu ci koor gi nga xam ne ci la ñu nekk daal di ñuy jéggal suñu ay rëcc rëcc yi nga xam ne def nañ ko ci avant koor gi waaye di koy ñaan mu wég ñu bu baax a baax bu ñu génnee ci koor gi ànd ceeg jaamu yàlla gu sax dàkk mbokk yi ñu ngi fii ci Tivaouane fii ñu taxaw ni nag xam te ni mooy njiital commission bu mairie bu Tivaouane di Gora Seck sorti sortie fii nag euh, bala bala boobu nag xam ngeen ne lii suñu ginnaaw nekku fi woon waaye tey ji nag euh, ñëw nañ fekk fi lii ci loolu nag la ñu war a waxtaane waaye it ci yeneen euh, génn yi nga xam ni Tivaouane war na ko am ci wàllum tàggat yaram lu ci mel ni stade départemental bi nga xam ni Sénégal dina dalloo ñaar fukk juróom benn Tivaouane daal di ci bokk loolu lépp nag dinañ ko fi waxtaane balaa ñu sor rek ma daal di jox ki nga xam ne mooy suñu ganuk tey di Gora Seck mu daal di nuyoog internet yu Jàmm TV Alaaji Gora ñu ngi lay nuyu waa ñu ngi lay fay donc euh, sama waa ji sama sëriñ euh, di la ziar bu baax di la baalu àq aussi ci koor gi di baalu ak aussi mbe mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi suivre seen euh, plateforme bi Jàmm TV mhm. donc di leen remercier bu baax aussi ci tey seet si gi ngeen ñu seet si. Mhm. jërëjëf suñu laaj bu njëkk day doon na tey dañoo ñëw fii ngir waxtaane saytu it uh, li nga xam ne moom mooy état d' avancement des des travaux ni ma ko waxee ñëw nañ fi ay weer ci ginnaaw sori na soriwul uh, fekk na boobu affaire yi tolloogul woon fii ñu ngi woon ci canalisation yeeg yooyu noonu amuñ ci waxtaan ak yow ginnaaw ba it ki nga xam te ne mooy jëriñ ji ñu dégg tàggat yaram Yankhoba Diattara ñëw na fi tey nag lan nga ñu mën a wax ci diggante boobu ak léegi fi liggéey bi toll nga xam te ne Tivaouane ñu ngi koy xaar waa bon wax nga dëgg euh, euh, euh, ñëwoon nañ fi ay fan ca ginnaaw donc ñëwoon seet si liggéey bi donc ñu leen di remercier baax ci intérêt bi ngeen accordé vraiment donc les travaux de réfection du stade municipal de Tivaouane bi nga xam ni le maire la mairie de Tivaouane à travers donc le maire ñu ngi koy jéem a réaliser donc ñu mu am ñaari phase yoo nga xam ni ñoo concerné les travaux muy première phase bi di pose gazon bi donc defar grille de protection bi defar piste d' athlétisme bi terminer main courante bi avec les portes et autres donc euh, euh, euh, daal di koy fermé deuxième phase bi mu concerner donc les autres disciplines yi nga xam ni war nañ mën a réfectionner seen terrain muy terrain de basket bi ak terrain handball bi mu am yeneen gradin yoo nga xam ne aussi amu ci woon defaraat aussi donc les gradins rendre ko vraiment mu gën a euh, attrayant ba nga xam ni sportif bu ñëw di nga mën a toog euh, seetaan wala nga pratiquer say sport mhm. donc ci niñ koy defee ci ci ci dëkk yëpp parce que Tivaouane yàlla moo dogal mu nekk dëkku sport donc ci loolu nag ki la maire vraiment euh, woon à ce que ñu defar stade bi ba mu méngoo ak li nga xam ni moom la ñu soxla. Mm. waaw euh, tudd nga ko léegi euh, ñaari phase la waaye ci biir phase yi dama dégg nga lim ci yu bëri euh, gannaaw liñ ci lim gis nañ bu si mel ni gazon bi mën nañ jàpp ni la ci des daanaka bëreetul ndax kon li yeneen yi des yëpp ndax nañoo jàpp ne stade bi noppeeguñu ngir mu pare. waa bon des na tuuti nag parce que aussi boo xoolee même grille de protection yi épingle yi déjà dindi nañ ko peut-être travaux yi léeg-léeg lu ci bëri daf dul la xaw a dul xaw a visible. n'est-ce pas. Mhm. Euh, ndax euh, nit ñi li nga xam ni moom moo visible rek la ñuy gis gazon bi bi ñu tàmbalee teg gazon bi ci la ñuy ci la ñuy soog a comprendre ni donc liggéey bi ñu doon def am na am na fu mu toll. mais ñun ñëpp xam nañ ni bala ngay poser gazon am na yu bëri yoo nga xam ni donc donc nga koy en terme d'évacuation donc de tuyauterie et cetera yëpp donc vraiment def nañ ko ni mu waree ak ni nga xamee ni euh, bu bu amee même bu fekkee nawet dafa jot. équipe yi danañ man a pratiquer donc ci ni mu waree. loolu moom moo ci am solo quoi. Euh, lii nii gason bi si boppam teg bi ñu bëri dañ ci amoon euh, jiixi jaaxa ñu bëri jàppoon sax gason bi duñ ko jot a teg waaye biñ ko tegee image yi commencé daw jur na euh, mbégte ñu bëri yow jamono boobu naka nga ko dundee ndax am nga ci ay retour ci population bi. waaw bon am nañ ci ay retour parce que ci lañ dëkk ñun ñun ci sportif yi lañ bokk. waxoon naa la ko yaakaar naa ci suñu entretien ba le passé. Mm-hmm. Euh, euh, acteurs sportifs yi nga xam ni dañu waroon a marche dañu waroon a jooytu donc euh, stade bi ñu defar ko man ci laa bokk je suis le deuxième vice-président le premier vice-président chargé de la sécurité de la zone 1C donc bokk ci mouvement nawetaan donc kon ba noppi aussi nekk membre ci les dirigeants de de Kouly FC kon rien que ça rek mën nañu comprendre ni donc ñun ci sportif yi lañ bokk kon xam nañu Euh, retour bi nga xam ne moom moo doon jóge ci population bi donc population bi nag euh, dan dañ leen di comprendre parce que xam nañ ni euh, du dara lu dul dañu bëgg lu baax ci Tivaouane moom moo nekk dëkk boo nga xam ni wax dëgg yàlla nit ñi danu teel a yeewu ci sport dañ ko teel a pratiquer donc tey bu ñu amee benn exigence bi ñun loolu suñu satisfaction lay doon parce que maire nag comprendre na ko bu baax ba lépp lu ñu fiy def. qualité lay doon incha allah. Mhm. Euh, ginnaaw ba ki nga xam ne mooy jëwriñ bi ñu dénk tàggat yaram euh, di Yankhoba Diattara teew na fi euh, mu doonoon it satisfaction si ñu bëri rawatina ñi nga xam ne ñooy xeexal tàggat yi nga xam ne jëloon na ko fi. engagement yi fu mu ci toll ndax yow mi jiite commission bi ndax gis nga ni mi ngi wéyal wala ba tey liggéey bi yéen waa maire yéen Tivaouane yéen ci nekk ba léegi. waaw récemment je crois que le passé la recevoir benn circulaire venant du ministère. pour que ñu identifier les vingt six stades départementaux yi nga xam ni le ministère mi ngi koy fas yéene di réaliser ci deux mille vingt trois nii donc Tivaouane heureusement comme ni ko ministre bi euh, santaane woon. bokk nañ gis nañ donc ñu insérer ko ci tableau boobu. Mhm. si fàttali moom bi mu ñëwee waxoon na Tivaouane day am stade départemental. bien sûr parce que déjà ñun délibéré nañ ko au niveau du conseil municipal. Mhm. donc loolu loolu sax mooy nekk euh, sama sama deuxième laaj euh, ñu bëri si askan bi am nañu ko yëg am nañu ñu ko yëgul waaye am na ñu nga xam ne amuñu si ay euh, leeral lan nga leen mën a wax ci délibération bi nga xam ne def nañ ko ngir ñu mën a amal beneen site beneen stade départemental. waa bon xam nga le maire dans sa vision moom euh, euh, dafa nekk euh, député au niveau de l'Assemblée nationale mm-hmm. di am benn am information yoo nga xam ni pratiquement donc dana ko permettre mu mën a anticiper sur l'action du gouvernement donc loolu yaakaar naa bokk na ci li nga xam ni moo ñu dimbali bu baax ba avant bi fi ministre bi di ñëw ñun fekk na déjà ñun on sur le coup yaakaar naa moom déjà annoncé woon na les les les quinze hectares yi nga xam ne ñun ñu ngi ko doon jéem a identifier dans au niveau de l' espace communal pour que bu ministère ñëwee ñun liggéey bi du taxawaalu parce que Tivaouane soxla na ko. Tivaouane soxla na stade boo nga xam ni stade multifonctionnel lay doon euh, euh, permettre donc dans le département. Euh, les les ñu am benn cadre adéquat bi leen di permettre donc ñu pratiquer donc hmm. seen i sportif seen discipline yi. mooy am na ñuy wax ci suuf naan non non ba waraguñu wax stade départemental nañu lijjanti suñu stade bi ba pare parce que stade départemental bi moomuñ ko ñun kese département bi dañ ko bokkal te ñun stade bi ñu moomal suñu bopp pareegul nañu wax ci boppam pare ñooñu lan nga leen di wax. waaw bien sûr parce que aussi suñu stade communal bi moom wax yàlla yow ñëwoon nga fi bay passé tey ni donc les ñu ngi ñi ngi ñi ngi koy def ni mu waree instant bi nii lii nii moom ku ko xool wax dëgg yàlla sa xel dana dal ni euh, ñu ngi ci bu baax a baax. Mhm. beneen bi ci des moom mooy stade départemental même bu fekkee c'est pour le département mais ci suñu commune lañ koy defar. donc nag ku gën a jege gën a yey. Mhm. yàlla dogal na nag bon ñun moom wax dëgg yàlla am nañu chance ñu def ko ci commune Tivaouane donc loolu rek war na tax ñu gën ci am satisfaction. Mhm. waaw loolu daal lan leen bi ministre bi envoyé euh, circulaire bi site bi ndax mën nañu xam euh, fan la fan la nar nekk fii ci Tivaouane wala xamagoo leen ko. si si identifié nañ ko ba délibéré ko. parce que euh, boo xoolee ak de délibération bi sax moom déjà war na war na mën a génn parce que dina bokk ci PV bi mais euh, on a identifié quinze hectares au niveau de la zone de Mboro n'est-ce pas ci wetu école de la zone de Kër Ndiob autant pour moi ci wetu école primaire bi. su côté boobu lay la lañ koy defaree. Mm-hmm. Euh, lan la ñu mën a xaar ci stade boobu luy uteeg stade bi nga xam ni moom lañ am fii ci Tivaouane ak bu noppee ba pare lan mooy lan mooy njëriñam. waa bon xam nga stade départementaux yi aussi faaw ñu am ñun euh, maquette bi déjà ministère mi ngi soog a lancer le projet euh, pour que ñu identifier les les les sites pour que travaux yi mën a démarrer. avant muy démarrer dinañ am tous les éléments pour mën a répondre ci questions yooyu. Mm. mais aussi dañuy bañ vraiment donc wax ci loo nga xam ni après euh, ñoom ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñoo koy construire muy le le ministère donc buñ ñëwee ñoo am ci beneen idée. Mm-hmm. mais ce qui est sûr moom mooy euh, stade multifonctionnel lay doon. boo nga xam ne discipline yëpp nañ ci mën a retrouver seen bopp. Euh, stade boobu mën nañ jàpp ni que euh, maanaam defar ko du am du andi benn entrave benn lenteur ci liggéey bii nii parce que wax nga ko léegi ministère moom moom moo ko sasoo. Mm-hmm. non no non bokkul sax parce que euh, wax dëgg yàlla léeg-léeg programme gouvernement la donc à travers le ministère des sports euh, que nous saluons parce que aussi di leen remercier aussi ci choix bi ñu porté ci suñu département ça prouve que ni euh, le cri les cris de cœur yi nga xam ni sportif yi yàgg nañu ko joytu dégg nañu ko donc euh, yaakaar naa ni loolu rek moom moo ci nekk mhm. n'est-ce pas ce qui est sûr daal mooy euh, travaux yi donc action gouvernementale la loolu bokkul ak bi nga xam ne lii nga xam ne stade municipal la mhm. euh, ba noppi aussi stade municipal bi aussi ces travaux de réfection yi dañ ko inscrire dans le programme du ministère ba déjà un promoteur gagné woon na ko mais maire xaarul loolu dafa déjà moom dafa dafa dafa entamer ses ses ses euh, dans en premier temps benn budget d'une valeur de cinquante huit millions n'est-ce pas environ maintenant pour que ñu démarrer le travaux dégager waat dans le budget de deux mille vingt trois aussi euh, une valeur de cent cinquante sept millions presque deux cent millions yoo nga xam ni pratiquement la municipalité de Tivaouane dina ko injecté ci stade bi. Mhm. yaakaar naa loolu bu fekkee am na. après euh, euh, le ministère aussi dégagé woon na beneen enveloppe boo nga xam ne 817 millions la woon. loolu waxoon nañ ko ñoom fuñ ci toll est-ce que posé nañ acte bi waaw bon parce que loolu aussi xam nga c'est dans le programme parce que déjà euh, mairie bi li nga xam ni moom la programme woon ci ci 200 millions yooyu ñu ngi koy déroulé. leneen li ci des programme mu ministère la donc heure bu ñëwee dañ xam ni lii nii donc ñëw na mais ne l'un dans l'un bu fekkee ñëw na wala aussi mu am benn peut-être lenteur comme ni nga ko ni nga ko tuddee parce que ñun. nekkuñu dans leurs actions ce qui est sûr moom mooy ñun les travaux vont continuer ba nga xam ni ñun lañu fi war a def nañ ko def. Mhm. incha allah. Euh, ginnaaw euh, leeral bi nga àndi ci euh, stade buy bii ñëw muy départemental bi mhm. ci stade bi léegi de façon définitive mën nañu xam mhm. kañ la nga xam ni lépp rek dina dina yemb ngir ñu mën ko mën ko jot ñoom waa Tivaouane. waa bon xam nga aussi man moom duma dul nangu sax di substituer wu. ci euh, li nga xam ni xalaatu promoteur bi koy liggéey la en tout cas ce qui est sûr moom mooy les travaux continuent suivent leur cours ba nga xam ni euh, ñoom buñ ci paree incha allah ñun liñ ci soxla dinañ ko am mhm. li li li ma mën a dalale xelu sportif yi mooy les travaux continuent dootul arrêté ñu ngi ci mais qualité la ñu bëgg ku bëgg qualité nag dafa am lu muy def lu muy lu muy lu muy laaj mhm. loolu mu mel ni kii message la à l'endroit de ñi nga xamante ni ñooy toujours ñooy poser question bi euh, muy sportif yi muy euh, population yi nga xamante ni tamit euh, fi la ñu dëkk waaye it lu jëm si sama question bi jamono ji lu ku si mel ni ki waaye yow mi nga xam ne yaa jiite tàggat yaram gi ndax amu leen pression ndax doo leen dund jafe-jafe li nga xamante ni mooy stade bi ak gars yi niñ ko bëggee niñ ko soxla waaye ndax jamono ji it pression bi wàccul ginnaaw ba askan bi gisee ministre bi ñëw fi wala it ak avancement lu ci mel ni ki tegum gazon bi. Mhm. waaw bon euh, loolu moom tontu bi du sori parce que man yàlla yàlla bindoo ma may nekk nitu nitu pression euh, ñu ma xam sax xam nañ ko bu baax a baax man du ma dund pression. Mhm. Euh, mais nga dox dégg publication suñu stade de Tivaouane rek wala nga dégg wala noo koy dundee yow. c'est parce que aussi xaw man mii di wax ak yow léeg-léeg ñooñu li ñu réclamé man maa lañ ko gën a réclamé bu ma sañoon tey tey tey dama yor sama benn bagget magique li ñu soxla lépp ci stade bi mu pare tey. bu defee acteurs yi mën a jotaat ci seen ci seen joyau bi nga xam ne moom lañ soxla mais euh, euh, assurance bi ma lay jox rek moom mooy wax dëgg yàlla mosuma ci dund pression wala ma santir ci loo nga xam ni euh, posé na ma problème déedéet. Mhm. parce que ci acteur yi lañ bokk. ñu ne sportif lañ. <laughs> macha allah je pense que tout a été dit lan mooy dernier mot bi ngay lancé rek à l'endroit de tous les sportifs de Tivaouane jëm ci ci stade bees bi nga xam ne ñu ngi koy xaar. waa bon di remercier la population de Tivaouane rek aussi donc euh, à travers euh, la communauté sportive de Tivaouane man xam naa ni nous avons des de la qualité donc ci suñu pratiquants yi euh, performance yi fi am aussi bari na loolu donc Tivaouane waa bu nekk da nga ciy fier di ci kontaan xam na ni aussi euh, exigence yi du dara lu dul euh, ku ci nekk bëgg nga li ngay def nga def ko au grand bénéfice donc de de Tivaouane donc te loolu mënuñu ci def lu dul am ci satisfaction maintenant euh, message bi ñuy lancé rek moom mooy euh, euh, euh, donc appeler tout le monde autour de l' essentiel déjà ñu ngi ci parce que bari na ci acteur yu bari yoo nga xam ni léeg-léeg man maa leen di recevoir parce que li maire di wax rek moom nee na la mairie de Tivaouane daf ko daf ko décentraliser de de manière à ce que euh, les commissions techniques jouent leur rôle pleinement te wax dëgg yàlla ñu ko ci remercier ci confiance boobu mu ñu jox. donc à travers la lutte à travers aussi donc le handball à travers le basket à travers donc les sports de combat et yi nga xam ni ñi ngi ñi ngi koy pratiquer ci espace communal bi yëpp wax dëgg yàlla euh, ñi ngi leen di recevoir di am seen i message di am seen i conseil aussi di am aussi seen i seen i message de soutien te loolu moom moo ci ëpp solo parce que liggéey bi d'accord diis na diisul parce que fekk nañu ñu nekk ci suñu liggéeyu bopp mais quel quel que soit alpha Euh, dafa nekk loo nga xam ne daan nañ ko dund ni ñu ko doon dundee rek lañ ko continuer di dundee voilà. macha allah mu nekkoon euh, ki xam ne mooy euh, Gora njiite commission sportive fii ci mairie bu ko li nga xam te ne leeral na ko si ci wàllum avancement wu stade bi ñu nekk waaye it bi nga xam ne namm nañ ko samp fii ci Tivaouane mu doon mu nar doon nag ñaar fukk ak juróom-benn Sénégal Tivaouane am ci balaa yàgg it dégg nga ku maquette bi dina génn nangu ci avancé wu parce que it xamaguñu naka lay tëddee programme mu ministère la ñu amoon mbégte teew fii mbokk yi jukki ci ay leeral yi nga xam te ne njiiti njiit li moom góor sekk daan na ko fi andi ñu am mbégte it di leen tàggatoo rek di leen dig daje beneen yoon incha allah ci seen chaîne YouTube bi di Jam TV